mooy candidat bu parti démocratique sénégalais ci commune bu Mbacké docteur Lamine Fall doomu Mbacké bi mi ngi nag jànge ci école primaire Mamor Diarra ci Mbacké jaar na CM Gaynde Fatma ginnaaw bi mu amee BFM dem lycée Cheikh Ahmadou Bamba bu Diourbel am fa bac mention wéyli université Cheikh Anta Diop am doctorat en médecine nekkoon ancien interne des hôpitaux de Dakar agrégé en anesthésie ci atum 2016 titulaire de chaire en 2021 et responsable du département d'anesthésie réanimation et de médecine d'urgence à l'UGB Université Gaston Berger moom docteur Lamine Fall militant de première heure du parti démocratique sénégalais bokk na ci ndaw yi mës a gëm président Abdoulaye Wade di ko nag liggéeyal saa su nekk sans contrepartie ndax gëm doctrine libérale fii si Mbacké parti bi yëpp mag ndaw góor jigéen ànd ak moom si mission bi ñu teg ci loxoom ginnaaw bi ay jafe-jafe yi ndaxte base yi tasoon na ténor yi mu fi amoon doon ay dinosaures politique ñëpp dem nañu si la jóg nag ngir relever défi bi ànd ak mboolem segment du parti donte traversé nanu ay difficultés yu bari avec l'arrestation de Karim Wade waaye tamit sañe bi amoon seen biir parti ñu bare dem transhumer parti au pouvoir wala ñenn ñi jëlee seen activité yi moom ndaw li mu doon gis ni PDS patrimoine la te nag warul naax saay di ci liggéey ànd seeg kàngam yi ci département bi am confiance su comité directeur bu PDS ginnaaw bi ñu lancé jaayum carte yi ñu teg lépp si loxo mu ànd si également ak les femmes du PDS les mouvements de soutien mais également waa UJTL ndaxte mënuñu jàpp ni secrétaire général national bi Macky gii la fekk baax ñu nag joxante seen loxo ngir nag sauver parti bii liggéeyal PDS ba bin koy investir si élection locale yi war a am si atum 2022 docteur Lamine Fall doon na nit ku effacé wu wane ni mu koy waxee si terrain bi fi muy jaar xam na ko li muy liggéey jarul coow te nag bu yekk jotee dina am résultat loolu di ay waxam leg bi ñu ko bàyyeel muy PDS budul woon moom jàpp na ni dem na nax na saay waaye ànd ak waa partem jeunesse bi ñu gëm ni Mbàkke bokk na si lenn si ay base affective bu PDS ndaxte gox bi ministre yu mës a am yu si bari ñoo ngi jóge ci boobee parti moom docteur Lamine fal nekkat loole lay dekkali yi PDS ànd si ak ay ñoñam te nag élection yi di ñëw si ay kàddoom dinañ si wane seen taxawaay boobu mat sëkk ndaxte fa ndox daan taa boo demee ba léegi fekk fa tepp teppi loolee ay waxam la ba tey confiant na gis na ni lépp mën naa nekk te nag espoir du mës a jeex indil mbàkki programme bu tegu si ñëpp jariñu maanaam di l'essentiel indi rupture dox jëm ca kanam ndaw yi gis seen bopp jigéen ñi ku feebar faju ku bëgg jàng mu yomb la yeesalaat voirie bi participer ci développement local bi soqali culture bi dëkk bi doon gox bu attractif Mbàkke dox jëm sa kanam foofee la taxaw moom docteur Lamine Fall ginnaaw bi nga ko investir yi moom docteur bi nekkat doomu Mbàkke ñëw na ànd ak doomu Mbàkke yi daagaan seeni baat ci élection yi nuy jëm ci janvier 2022 ñaar fukki fan ak ñett